waaye nuyoo yooyu yëpp ak ziar yi ñu teg ko ci loxal sëriñ Ma Bey mi nga xam ni mooy xalifob alhaaji Amsatu Guèye di xalifob sëriñ Moustapha Guèye mii nga xamee ne moo waral bis bi ak mbooleem ay rakkan mbokk yi ñu ngi tàmbali cérémonie bi maa ngi tudd nag mbooleem kilifa yi fi teew sunu kem kàttan ci liñ ci jot a jàpp sëriñ Abdou Samad Mbakke moom sëriñ Chouaib ñëw na fi dikk fi jiite fi tisbaar ubbi jàkka ji nga xamee ni sëñ Moustapha Dieye tabax na ko fi te jàkka yàlla santaane ko sëriñ Fallou Mbacké ndéene moom sëriñ Abdoul Wudóot ñëw na fi sëriñ Fallou Mbacké moom sëriñ Moustahine Mbacké moom Cheikh Mahamadou Lamine Bara ñëw na fi sëriñ Moubarak Mbacké moom sëriñ Abdou Akram moom sëriñ Afia ñëw na fi sëriñ Mor Diagne Njaañ ñëw na fi Sering Abdul Ahad mom serigne Cheikh gay, mom serigne Abdul Ahad ñew na fi sering basiru Coro Mbàkke mom serigne Cheikh Coro mom Cheikh Mouhamadou Lamine bara ñew na fi wëlbatiku it yabal ci bis bi sécurité bi nga xamé ni tew nañ fi di sécurité bis bi ñu di leen woyé xuddaam sécurité xuddaam boobu sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Abdul Ahad ko serigne Modou Jawbe ak mbooleem sécurité bi mu andal ñew nañ fi sëriñ Cheikh Abdou Mbacke moom sëriñ Souhaïbou Koso ñëw na fi sëriñ Mor Ngiraan moom sëriñ Mbay Ngiraan ca Njaareem di borom xam-xam bu mag mi ngi nii ci kaw sëriñ Modou Guèye Mbulam ñëw na fi di sëriñ Fay xalifa Baye sekk Gaye Ndiaye ñëw na fi sëriñ Xaadim Gajaga imam di sëriñ Daara ñëw na fi sëriñ Abdoulahat Dieng di sëriñ Daara ñëw na fi sëriñ Saliou Dieng chef de village Touba Bokkatul Mubaraka yabal na fi délégation serigne Murtada bass khalifa alaaji Mbay bass and nak ay mbollem ay rakam serigne amadou bass serigne makhtar ni sante yalla subhanahu wa taala julli ci yalla bi alayhi salatu wassalam ñoo ngi taxaw fi fasiyene len jott di kàddu serigne Mara gay mo alaaji serigne barke gay ngacc kàddu yoyu nak da ca jitu cant la ak ñaan ginnaaw bu dalalee mbooloo mi fi daje yépp di mbokki taalibe yi kilifa diine yi fi jaar kilifa cheikh si fi jaar jàngkati alquran yi jàngkati xasaayid yi waxtaankat yi ak communicateur traditionnel yi nga xam ne yépp ñu ngi ci bërëb bi ak képp koo xam ne ci lu jegeñ ak lu sori taxaw nga ci bés bi wala nga dugal ci sa ñaq sëriñ maa bi mu ngi lay nuyu mu ngi lay ziar mu ngi lay jëfal di xam ne itam lépp lu fi waaye def rek jàpp na ne moom nga ko defal ndax bis bi ba ñu ko sosee ba tey bis yi fi jaar waralewu ko ak bis bi ndax lépp bisama lépp njabootam la lépp ab liggéeyama kon lépp lu ci waaye def rek yëg na ko te it mu ngi lay sant di la ci ñaanal suñu borom defal la ci faju aajo loolu jàlle itam sëriñ maa ngi mu ngi ñaan bis bi li ñu fi tax a daje muy ñaan ñaanal Serigne Malick Guèye ak Serigne Mor Astou Badiane ak Alxaaji Hamzatu Guèye Serigne bi mu ngi ñaan ci kattan ak suñu borom ak mbaaxam yàlla na suñu borom sotti ci ñoom yërmandeem ak njëggalam ci barkeb alquraanul karim suñu Serigne bi mu ngi ñaan ci barkeb alquraan yal na suñu boroom teg loxo ci njaboot yi yal na suñu borom defal sa ajo képp koo xam ne rek yaa ngi wékk sa yaakaar ci ki jëmm yooyu sëriñ bi ginnaaw loolu mu ngi yëkkati ab nuyoo ak ab ziar di ko teg ci loxool sëriñ Madi Guèye moom Alaaji Xamsatu Guèye di ko teg ci loxool sëriñ Moustapha Guèye di ko teg ci loxool sëriñ Modou Badiane di leen ziare bu baax di leen ndokkeel ci bis bii di leen jottali ak cantu boppam euh, boo xam ne lott nañu ci matale ko ni mu te ci ci matale ko muy kàddu boo xam ne yéene ja sax asaka la rawatina luñ cay yëkkati ci aw làmmiñ di ko ca wax muy cant boo xam ne jëmale na ko ci sëriñ maamiyam sëriñ Amsatu mi ak njaboot gi nga xam ne ñooy njabootu sëriñ xam Gueye te ànd ak moom liggéey bii sëriñ Mara nee na mu ngi am mbégte lool di am xol bu sedd lool ci taxawaay bii ngeen taxaw ak liggéey bu sell bii ngeen di liggéey ci biir ak ci biti ci bopp gi ak ci taalibe yi ci diine ji ak ci aada ji lépp taxawaay bi rafet na lool liggéey bi sell na lool lépp lu ñu doon séenu def ngeen ci lu kawee njort ci ak ci ak mbaax akuk jotale akuk matale sëriñ Mara mu ngi seereel mbooloo mi ne sëriñ Mabey mii day ak njabootam gii genn kilifa rek lañu am bu ñuy déglu genn kilifa rek lañu am bu ñu bàyyil seen lépp muy sëriñ Mbacke Gueye Ngathie sëriñ Mara nee na sëriñ Mabey mii day ak njabootam gii mu àndal dañoo doon ñoo xam ne ba seen waajur wu baax wa Alaaji Xamsatu Gueye di dund dafa ànd nag ñoom sox ci Alaaji sëriñ Mbacke Gueye tàggat leen ca nàmpatal leen ca ñu di taalibe fees dell la di ay jullit xaqan di ay murid saadix bëgguñu lenn lu dul ngërëmal Serigne Touba doxuñu jëm ci lenn lu dul ngërëmal Serigne Touba loolee itam seen waajur wa nàmpataloon leen ca tàggat leen ca ba mu leen wanee ginnaaw ba tey jii benn bu mu bàyyi woon góorgóorlu nañ ca ba def nañ ca fukk ci topp akub jub akub jubal akub juboo akub rafetal ndax kat askanu Tawa Gueye la ñu donn du lenn lu alxuraan ak diine te loolee rek ci lañ leen di seen kenn mësu leen a dégg ci luñ leen di xeebe kenn mësu leen a dégg ci luñ leen di yabe te loolee ñu def defal nañ ko njabootuk sëriñ Mabey gépp defal nañ ko njabootuk sëriñ Touba gépp loolu sëriñ bi nee na mu ngi leen koy seereel leen xamal ne itam seen pas-pas ak seenu taalibe wóor na ko ne fu ñu yendu ndigal leen fa yendal fu ñu fanaan ndigal leen ci fanaanal waxtu wi biig rek sëriñ Mabey mii ci jataay yi ñu amaloon ci biir kër gi waxtaan nañ ci waxtaan wu yaatu muy waat ne tey jii bu ko bàyyi Serigne Mbacke woowoon ne ko dama lay jaay moom de du lijjanti fu ñu koy jaay ak gan njëg lay jar waaye dana laxasaayu yóbbu yóbbu boppam te loolu noonu mu ko waxee noonu lañ ko gëme te noonu la wéree loolu nag noonu la mel noonu la rakkam yooyu yëpp mel sëriñ Mara mu ngi sant Cheikh Moustapha cant bu wér a wér a goo xam ne santaale na ca képp santaaleel na ca képp koo xam ne njabootoo nga ci Serigne Mara di doom di ngir matale gu mu matale ak jotale gu mu jotale tàllal loxoom ñëpp nga xam ne ni mu defee mag ñi ay sëriñ noonu la defee ndaw ñi ay doomi sëriñ nga xam ne amul ci kenn koo xam ne mu ngi lay sàllawlu ci benn bis wala mu lay cof ci nuyoo wala ci kàddu ñoom ñëpp bëtub sëriñ la ciy xool ñi mu mag sax da leen a jàppe ay doomi sëriñ ni mu jàppee mag ñi ay sëriñ loolu moo di yëgam moo di yaatalam moo di rafetalam ni ngeen ko gisee ci zahir mu génn mbooloo mi yëpp man koo gis kenn ku nekk mën a jëflante ak moom ba jàpp ne Cheikh Moustapha yow rek yaa ko moom yow rek yaa ci ëppale sëriñ Mara Gueye nee na na ngeen xamee ne Cheikh Moustapha balaa jàpp kenn ci àll ba dafa boole ñi mu am ñi mu bokkal ñëpp téye leen matale ak xam ak ñoom kenn ku nekk fa mu la war a teg mu teg la fa place ba mu la war a teg mu teg la fa cër ba mu la war a jox mu jox mu jox la fa soog cee boole keneen ko ciy bokk sëriñ Mara nee na. sant na Serigne Moustapha sant ko cantu kilifa yi sant ko santu njaboot gi sant ko santu taalibe yi yàlla bu ca nekk rek taxawaay ba mu ca war a taxaw taxaw na jabar mat sëkk kon ci tënk foofu rek lañu ñu mën a yemale kàddu yi sëñ Mara ndax kàddu yëpp cant la ak ñaan mu ngi ñaan nag barab bii lépp loo xam ne alxuraan ñu ngi ko ci séddale yal na ca barab bii ëpple mbooleem ñi fi jaar ci daara ji yal na leen suñ boroom defal tawfiq defal leen teraangay àdduna ak moo koy jërë ngeen jëf. di la siyaare ci turu Serigne Makhtar si la li nga wax itam maa ngi koy teg si loxo nga nuyul na mbooleem njabootu Xaadimu Rasuul gi nekk ci bâche bi Serigne Makhtar nee na mi ngi lay nuyu bu baax a baax a baax te di la siyaare te di la ndokkal ci bés bi. ñaa sant day daa mënta weesu sant waaye bu ma ne sant mën naa weesu sant dana ne kon moom weesu na sant mu ngi sant baax a baax te dëgëral ku la bi baax a baax moo ma yónni fii ngir ma teewal ko fi ànd na ma ak sëriñ Fallu si la doomam ak sëriñ Adama si doomam ak soxna Faat si la ak soxna Ami si la ay rakkam ak soxna Faat si la ak Anta Dieng ak mboolem taalibe yi ñoom ñëpp teew nañu buñ mënoon a gën a teew ñoom ñu daañu ko def waaye yitte ak jamono ji xat moo tee ña waroon a war ñëw ñëpp ñëwuñu waaye bég nañ bég nañ bu baax a baax seen liggéey suñu mataar nee na xam na ne yëg nga ko yëg am na xam na ne yëg gi am na ndax bis bu toll nii di yiwu kese képp ku la ca boole am na yéene ci yow kon xam ne yéene ci baax nee mi ngi sant gërëm wax te ñaan yàlla sax mu àggale yéen yi euh, waxtu wi dafa gàtt ndax timis yi deema jot lam waxoon itam ci ñu war la ko wax tuuti nañ ci génne ko woon waaye moom la ko tënk daal mooy sant na bu wér-wér sant na bu wér ñoo ngi sant baax a baax tey siyaar tey ñaan yàlla saa borom nangu liggéey bi ka tax ngeen di ko liggéey yaa saa borom jotale ko ci ci daraja Ahmadul Xadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. waaleykum salaam wa ngi jégalu bu baax a baax kilifa yi toog ci kaddu yi nga xam ne moom la ñu yëkkati muy kaddu yoo xamante ne nii mën naa gàtt lool kaddu yu ndigal la yoo xam ne dafa bàyyi ko ci Serigne Mabeye géey mi nga xamante ne nii mooy xalifaab Serigne Amsatou yónni nu kaddu yoo xamante ne nii ci Serigne Moustapha yónni nu kaddu yoo xamante ne nii. daf koy jaarale ci àllaaji sëriñ Mbàkke Géey mi nga xamante ne nii mooy borom kër gi mooy yilif kër gi moo yor njaboot gi te sëriñ Mara Géey mii di ak taawam ñu dara jaale ko bis bi mu toog nii feggoo ak moom ak sëriñ Njaay Géey ak sëriñ Xaadim kon kàddu yooyu nga xam ne moom la ñuy yëkkati mu bàyyi ko ci sëriñ Mabé Géey moom sëriñ Amsatu mooy kàddu yoo xamante ne nii kàddooy cant la ak kàddooy ngërëm ak kàddooy ñaan di leeral mbooleem bokk yi nga xamante ne nii teew nan fi ak képp koo xamante ne yaa ngi dégg kaddu bi sëriñ maa bay nee na am na mbégte bu baax ak kontante am na bu baax xol bu sedd ci mbooleem ñi nga xam ne teew nan ci jataay bi waaye nag nee na mu jël kàddoom jépp jooyal ko jëmale ko ci sëriñ Safa mii nga xamante ne nii danoo bokk ñaari way jur ba noppi ginnaaw bi fi way jur bi bàyyi ko mu ànd ak mbooleem rakkam yi ak serigne bassirou mi nga xamante ni mag la ci serigne mustapha ak mbollem rakk yi top seen ginnaaw yeb jël serigne mabey mom tek ko fa nga xamne fofu la na tegon way juro diko xol ba li nga xam ne la doon xol serigne am Amsatu te fekk serigne bi dénkoon nanu ko lu jiitu ci ak dundam mbollem jabot gi serigne am Amsatu dajale na len ne len de len ma xolal serigne mabey ni sama fi baye ko na ngeen top ci ginnaawam te def ko muy seen kilifa wax serigne mabey ne ko ëlëk sama fi baye ko sama njabot gi ma la booleel na nga góorgóorlu ba bu leen jënde ay bokk bu leen jënde néegam nday bu leen jënde ay xarit bu leen jënde ay kollëre bu kenn tokkutan te sarat ci bopp yi topp la képp ngay kilifa loolee ko sëriñ am sat waxoon nag mu nga ca kàddu googee lay fiddiliwaat nag ci mboole bokk yi nga xamante ni nii teew nan ñu xam ne sëriñ Mabéye nee na sant na bu baax alaaji sëriñ Mbàkke Jéey nga xam ne mooy xalifaab sëriñ Mabéye ak mboolem njaboot ak sëriñ Mabéye ndax lépp loo xamante ne nii yëngu na ci buntu kër gi wala laal na ci bokk gi ci fenn fu mu ci laale fu nekk kenn ku mu ci doon ku nekk foo nekk loo jàpp da nga ko bàyyi ñëw taxaw ànd ak ñun liggéey boobu bu fekkente ne bis la boo xamante ne nii bisab naqar la wala bisab bànneex kenn ku nekk bu nu geesoo danañ la gis nga taxaw ànd ak ñun ba mu mat sëkk ci ni nga xamante ne nii noonu lañ ko bëggee wala noonu lañ ko yaakaare kon Serigne Mabé nee na mu ngi sant bu baax a baax waaye mu ngi sant Serigne Moustapha mii nga xamante ne nii nag dafa def koo xamante ne nii rakk la waaye ab taalibe la jël léppam jox ko ko ba noppi ànd ak moom ngir jëmmi suñu borom tabaaraka wa taala ak ndigalal way kon sëriñ maa nee na mu ngi sant baax sëñ Moussa mu ngi sant rakk yi topp ci ginnaawam yëpp nee na mu ngi sant bu baax a baax nag mboolem njaboot gi bàyyi kenn kilifa yi nga xamante ne nii ñoo fi teew sëriñ Mabé nee na na ngeen xam ne képp ku teew ci bis bi wala ci jataay bi wala nga yëkkati fi dara wala nga yëngal fi dara wala nga taxawal fi dara loo fi man def lu nekk nee na moo la ameel ak cant moo la ameel ngërëm ndax nee na lépp lu fi waay def wala lu fi waay wax jàpp na ne moom nga ko defal moom nga ko waxal ndax lépp moom la war ndax lii lépp ci loxo way jur wa muy sëriñ Amsa bi ca la nekkoon te tey jii moo toog fa sëriñ bi toogoon mate ko sëkk na sëriñ Mabey nee na mu ngi sant bu baax sëriñ Muudu Géey Mbakuli mi nga xamante ne nii mboolem njaboot bi nga xamante ni ñooy sëti sëriñ Mabey mooy seen kilifa sëriñ Mara topp ci ginnaawam nee na mi ngi koy sant bu baax mi koy gërëm di ko jox wàccuwaay yi ko sunu borom jox waaye sëriñ Mabey nee na sunu wayjur yi nga xamante ne nii danoo àndoon ak sëriñ bi ci démb ak bërki démb mooy magi taalibe yi ak bokk yi nga xamante ne ni dañ doon ànd ak sunu wayjuroo di sëriñ Amsatu ku ci mel ni Alla Jibre mii nga xam ne dafa jëlan kàddu léegi di wax te doon koo xamante ne nii diggam ak sëriñ am Amsatu ñëpp xam nañ ko ñëpp ràññee nañ ko ñëpp leer na leen ni sëriñ bi saa bu taxawaa fii ala kulli lu mu xat-xat-xat daana ko jëloo kaddu bëtt yi muy bëtt di jël kàddu dafa mënta ñàkk rek waaye xam na ne lépp lu fi jag nekk moom la jagal kon ñu ngi koy jégalu bu baax a baax waaye sëriñ Mabé nee na sant na ñëpp gërëm na ñëpp mu ngi jégalu ñëpp mu ngi baalu ñëpp ah nee na sant na ñëpp gërëm na ñëpp mu ngi jégalu ñëpp mu ngi baalu ñëpp ah sëriñ Mabé yónnee woon na kàddu yoo xamante ne nii gën naa yaatu noonu gën naa fasu noonu gën naa taw feexe noonu xanaa xatat waxtu bi nag ak it waxtu timis yi daanaka jot na te it mbir mi demee noo xam ne kenn ku ci nekk am nga pas-pas wala yéene yëkkati ci kàddu moo tax ñu gàttale ko noonu waaye Serigne Mabeye daal li gën a gàtt ci li muy wax mooy xolam sedd na xelam dal na la nga xam ne moom la doon gis ci nekk ak woy juróom ginnaaw bi fi woy juróom yi bàyyi ko gis na ne lépp mat na lépp yokk na nanu àndewoon ak Serigne bi mboolem bokk yi ak taalibe yi ak wëllëre yi ànd ak Serigne bi ñëpp fi di leen seen kóllëre ci diggante moom taalibe yi fi seen taalibe ci moom kon nee na sant na ñëpp gërëm na ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu annonce avant première ngeen am cant bëgg mu siiw màggal jàpp leen ni Ndiaye Pro barab bii di barabu communication da ngeen si ànd ak Khadim Ndiaye bu ngeen amee lu ngeen di liggéeylu bu ngeen amee avisé communiqué bëgg ko jàllale bu ngeen amee publicité bu ngeen amee ngénte cant ngeen bëgg montage bu rafet boole kook filmé bu mucc ayib lépp lu ngeen def comme prestation jëm si wàllu audiovisuel contacte leen Khadim Ndiaye borom Ndiaye Pro mi ngi si route de Belel jàkkaarloog boulangerie Gaynde Fatma wóote leen xarañ liggéey bu tegu si temps am tali bi gaaw efficace contactel Khadim Ndiaye da ngay am la nga bëgg si liggéey bu set wecc